salaamaaleykum mbokk internetu KSTV Sénégal nuyooti naa leen siyaarati leen bu baax a baax a baax naan leen nag euh, bés bu nekk rek ci koor gi ak la cay xew bés bu nekk ak reportage bi ñu leen di andil ci koor gi tey nag euh, ñu ngi leen ñëwal ci kafe gi maanaam kafe gi boo leen ko déggee gis ngeen ne bu koor gi te euh, tàmbalee rek ñi nga xam ne mooy xale yu góor yi nekk ci koñ bi koñ boo dem rek di nga gis ñi teg fa benn mbana ñi teg ñaari mbana ñuy segg café di jox jaamu yàlla yi ñi nga xam ne dañuy jóge fu sori sax di ñibbi bala ñoo egg seen kër bu leen dog fekkee ci yoon bi ñoo ñoo leen di servi café dinañ gis ñoo xam ne dañ ciy dem sax ba di ci boole ay mburu di ko jox jaamu yàlla yi waaye nag liy sabab loolu yëpp dañuy màjjaal a ah, màjjaal bi nag nit ñi nee nañ café gi a ah, seen intérêt da cee ne ndax seen intérêt mi ngi ci wala nekku ci di jégoo dañuy daagu ndànk dem ci kafe gi nekk marché Njaareem xool ñoom nu ñuy seggee seen café asalaamaaleykum ah, sama gaay maa ngi leen di nuyu suukaru café tamit di yow mu ngi may laaj di salaamaaleykum. maaleykum salaam. yéenay waa café gi. waaw café gaa ngi nii ah, euh, ngeen di def nii moom yéen na ngeen di am amal leen ko ay tour maanaam euh, café daara sangam nanga amu ko wala. non am na ko. li may café ciisa gi. café ciisa gi moom euh, altine borom. borom daaru. mais lii yàgg nañ ko taxawul yàgg na trop. war na mat ay année ngeen commencé def ko. non su ma juumul ay 2009 yooyu 2010. ngeen commencé def boobu ba léegi waaw. kon bi ngeen di kafe bee ko xewagul woon bu baax. non non xewagul ñoo ko fi njëkk teg presque sooy xool fii waaw yàgg na trop sax. léegi la fan ngeen jëlee inspiration bi ngeen xalaat ne rek da ngeen a war a teg café gi ci mbedd mi seeg ko di ko maye. parce que soo ko gisee loolu dafa amoon suñuy grand frère yoo xamante ne si daara bi lañ nekk ñoom ñooñu si ñooñu lañ ko gisee xam nga ñu ko doon teg ñu dem ba amatuñ jot ñoo ñëw jël relève bi. si ñoom noonu rek la demee. léegi yéen kafe gi boo leen koy gis nañ da ngeen di màjjaal léegi li ngeen di seggee café gi yëpp ci màjjaal mi la. non non dañuy am kees chaque weer bu dee dañuy génnee ku nekk da dañ lay woo téléphone laaj la xaalis léegi màjjaal bi nii dañ ciy kii pour dimbali yéen gars yi rek xam nga ñu jaamu yàlla ñu jaamu si yàlla noonu rek mais ñun lépp mën na instant yi nice. bilaa léegi ñii naan tey gi da ngeen koy mbubboo Euh, màjjal gi da ngeen cee gis seen intérêt ba moo tax bu keeru koor bi teroo rek ngee jël seen i ku nekk ruq bu nekk rek weng wengal kafe. non non loolu ay wax la rek parce que lii nii soo gisee ay màjjal taxawul ko de lii nii bise bu bëri la ñaari mbana man ñaari mbana ngay teg benn bi kafe la benn bu dute la da ngay defar ay mburu defar lépp ay lépp ngay defar loolu màjjal bi si bi ay 5000 ngay am 3000 loolu mënu kaa taxawal lii day plus day cent et quelques mille lay def si weer bi soo xoolee. gars yi ku si nekk ñoo si tabal seen ñàkk xam nga ak yu baax ay papa ay Ibou Ndiaye Pakala gars yëpp dañ si jàpp Baye Fall yi xam moo tax dañu jàpp rek ñu si gis njëriñ nag chaque année ñu dañuy gën a yokk waaw chaque année moom dañuy gën a yokk moom macha allah moom wax dëgg yàlla. ñu tuxu sama xarit bee bi yow ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar bu wér yaa booy. la. Papa Kara la bu borom daaru. alhamdulilah Papa Kara waaw sant borom daaru rek ah. waaw moo wóor de ñun moom lañ am de wóor na Serigne Touba amuñu ku dul moom. Cerno Ibra Faal di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ak njaboot borom daaru yow papa borom daaru gis nañ ne bu koor gi ñëwee yéen boo leen dee liggéey sax da ngeen di arrêté seen liggéey ngi ndax café gi lu waral loolu waaw loolu maanaam ñun dañoo doon ay taalibe sëriñ bi te amuñu lu dul sëriñ ñun liggéey yi ñu am sax ku tedd gi moo na ko jox kon nag maanaam weer wi bu jotee dañuy bàyyi lépp loo xam dañ ko doon def ñëw jàpp ci leen ndax li dafa yàgg comme ni la ko waxee rek ay yàgg na sunu ay magum taalibe ñoo ko doon taxawal ñoom ñu dem ba seen temps moytu leen ko ñu nekk si waar wi léegi ñun ñi nga xamante ne nag jege nañ man maay man filaa laay kafe café maay jaay fële café Touba Sikoor yi si kaw tel bi fa laa ne mais weeru koor bu jotee damay arrêté liggéey bi ñëw jàpp si lii parce que bu ñu ko deful kenn du ko def te tamit def giñ koy def ngërëmal sëriñ bi képp lañ siy gis te buñ ko tàmbalee def ba léegi tamit ñu ngi siy yëg avancement bu baax baax a baax a baax ndax sëñ Touba moom yaakaar naa ne kenn du ko maanaam kenn du ko liggéeyal di dellu ginnaaw maanaam avancement rek nga ci am moo tax liggéey bi suñu waar la ñun ku ko deful dañ koy def oo dëgg yàlla ñu ngi siy sant nag bu baax a baax dëgg yàlla waaw. yow moom yaa yor leket bi. waaw daa na de man ak gars yi. <laughs> yow mbaa Madial maa ngi doon. Madial mi de dañoo bëgg dimbali mbokk taalibe rek mais comme ni la ko saa waxee rek lii dafa nekk loo xam te ne cosaan la dafa yàgg trop wane sëñ Tuubaa yàgg na loolu sax loolu gars yi wax ay 2008 la la ko suñuy grand ku su mel ne Abo mu dëkk kër gi kër Sibi Sibi ak Saliou préfet ak Pathé ñoom ñoo doon ñoo ko doon taxaw ñu ba ñoom seen jot maytu leen ko seen liggéey ak temps ak yooyu maytu leen ko donc suñu borom def na ñun ñu fi nekkee xam te ne ñoo a féete ndaw ñun ñu nekkal leen fi mel nag ñoom ñu ngi fi mais ñun ñoo leen fi nekkal ñun day ñaan yàlla ëllëg bu ñu nee ba nekk ci suñuy borom raq wala suñuy jarbaat wala suñuy doom ñëw taxawu ko parce que boo xoolee ci kanam tuuti bépp xale bu dëkk ci koñ bi da ngay ñëw fii génn mais majal bi nag du dara wane Serigne Touba lii dañ ko defal kees kees nañ ko defal chaque junni joxe ko wala kenn ku nekk yaay xool fu sa doole yam nga joxe ko ba kenn ku weer koor gi di taxaw weer koor gi weer koor gi ñëwee nag léegi lépp li nga xam te dañ ko defoon kees dañ koy génnee lépp ñu def ko ci ndogo yi dañuy defar kafe dañuy defar dute heure dog ma dafay am mburu dafay am maanaam dara du manqué wane Serigne Touba mu yàgg lool nag nekk loo xam te ne ñun ñoo ko taxawu suñuy magum ñoo ko taxaw ak suñuy grand frère ñoo ko doon taxaw ñu ne mu muñ mujj gi taxaw mais comme li nga wax sànq rek maam majjal beeg yooyu majjaal beeg yooyu noonu wane Serigne Touba du ci dara parce que boo xoolee kër gi lu muy génnee du bëri ay 2000 lay génnee 3000 ñooy ñàkk suñu xew ñoo si gis gars yëpp dañoo am. mos ngaa am ko nga majjal ku ñëw jox la bee bu 5000 wala bu 10 loolu comme nu muy demee ku ñu mel ne benn grand bu dëkk ci biir koñ bi nga xam te nii moom xam na liggéey bi ni muy doxee maanaam méthode bi ak tartar bi mu romb ñu fii ñëw fii nag kat man kat bàyyi ma barkeeloo ci café gi parce que moom moomu di barkeeloon ci café gam ay doomam wala ay wala ay raqam wala ay magam day ñëw fi jël si café gi sa dute maanaam koñ bi ba mu cat ba cat amul kenn kuy segg si këram kafe wala ngay tàngal dute fii nga koy utsee. xeewal la de loolu xeewal la de loolu. ñaari mbana bii dute la kafe ji moom nga njëkk a jot dute bi moo nekk nële si kanam tuuti ba fi waaw ku bëggul kafe da ngay bëgg dute waaw mi ngi nii mais nag du majjal bi lañ si basé wuñ fenn ci majjal wane Serigne ba majjal bi basé wuñ nit ci majjal suñu ñaq bopp lañuy génne suñu propre moyen gars yi toog fi dañoo am kii day liggéey kii day liggéey kii day liggéey dañuy liggéey dañuy jaayante nag koor koor dañuy teel a wàcc koor a wàcc quatre heures da ngay wàcc deux heures wala quatre heures nga ñëw kuñ ñi fi njëkk ñëw taal boo taalee gars yi fekk si la si mais nekkul basé wuñ ci benn majjal wala Serigne Touba dañuy demal suñu propre moyen bopp dañ koy utal kees chaque weer gars yi ba war nañ mat de vingt cinq personnes wala trente personnes ñuy taxawal fii café gi am na ay cant yu am fee bu ñuy wax cant kiise gàmmu ñoom ñoo koy taxawal. nan la. Massamba Kassé. Massamba bi neex na de. waaw Baye Fall la waaw. sama Baye Massamba seen la tudd. barke Serigne Touba Mbacke Baye moom mooy sama sëriñ waaw. dégg rek loolu dégg rek la waaw sëñ bi café gi yéen ci ñi koy segg nga bokk. waaw ñun ci ñu koy taxawal lañ bokk ndax boo xoolee penc mi mën nañ ni pencum sëñ Touba Guédiawaye fii la ndax fii waa kër sëñ Abdou Borom dër bi la waaw fii nit sëñ Touba dafay dafay dafay maam dafay dof kéemtaan goo xam ne fii ne booy boo ñëwee fii sax Guédiawaye di laajte kër Mouride sax ñëpp foo mën di laajte boo bañee réer neel neel kër Mouride rek waaw ndax kër sibi sibi ndax fii nii chaque jour chaque dimanche bu jot dañuy daayira fii waaw kon sëñ Touba yàgg na fii daal waa café gi nag Euh, comme ni la ni la ko gars yi waxee rek café gi moom suñuy mag ñoo ko daan def ñu nit ñun ñu ñëw roy ko ci moom di ko def ci ñoom waaw léegi nag suñuy rakk ñun parental yu ndaw yi buñ ñëwee tamit ñun après ñun bi ñu fi jógee ñoom ñoo koy def. te nag bu baax a baax a baax yàgg na fi nag te yàgg nañ ko ànd ak ñun ñëpp fi ni daanaka bu ngoon jotee boo xoolee café gi nii li koy waral bu ngoon jotee mbokku taalibe yëpp ay ñëw fi nuy café gi day dem sax ba léeg day manqué waaw. comme ni la ko gars yi waxee rek sunu li ci ëpp sunu propre moyen la ñuy jël def ko ci maajaal gi nag lépp lépp nañ ko sante suñu Baye Cheikh Ibra ndax lépp mooma ndax lii li ko li ko wund lépp Sëñ Tuubaa moo moo moo joxoon Cheikh rek ndigal li pour mu pour muy joxe weeru koor ndogu waaye nag ñun comme amuñu moyen ni pour mën a togg waaye dañuy jël sunu ñax def ci mën a am kafe ñii mën a am dute ku ci nekk fa sa doole fu fi mu mën a yëkkati joxe ci jaam ñi ñaq jariñu loolu Sëñ Tuubaa woote Cheikh Ibrahima nag daal ne euh, ëllëg yomal xiyaam bu yàlla du fay wax bàyyi jëf ñàkk koor gi ak ñàkk julli gi moom waa kër Cheikh Ibrahima Fall loolu jagleel gi ñu ci am yaakaar naa tey liggéey gën jàng li Cheikh Ibrahima wax liggéey gën joxe gën julli maandoo gën koor waaye nag lépp lu mu mënti doon ak loo mën a wax ak ku xamul bu taxaw di wax fee boo ñëwee Touba ba gis baay Fall yi ni ñuy joxe ndogu yaakaar naa ak ku mën a doon boo ñëwee ba gis baay Fall yi joxe ndogu xam ne lii yëfi nit mënu ko baatin dëgg moo rax ci biir sa sëñ Tuubaa moo ñu ko dimbalee ak Cheikh Ibrahima Fall kon nag sant nañ bépp jullit sant ñëpp sant waa koñ bi it ak suñuy mbokk taalibe waaw lu waaye am nag comme ni gars waxee xam ne si ñoom tamit la jëmaat fi mu toll ni ñun ñii ko segg amu ci kenn fi nga jël tey sa fukki wala tey benn kopp bu jëm sa kër ñun ñi ko ci jaamu yàlla yi la jëm jaamu yàlla yi la jëm amu ci kenn ku ci firndi sax léeg-léeg bu bu heure ndox bi jotee ñi nga xam ne tey dañoo bokk ci ñun tey woor wallaahi léeg-léeg dañuy dem dem jëndi feneen café ñëwaat parce que danañ dem ba nit ñi dañuy wër fii nii day fees dell café gi du mat ah, kon gis ngeen li lañ leen jëlal si woon fii si marché Ndiarème ci café gi mu nekk ay xale yu ndaw am jom nag takku liggéey rek ngir seen koñ bañ a manqué café bañ xiif bañ a mar ndax lii ci jom la bokka ah, lii yom la bokk kon nag ñi nga xam ne dañuy ibbi seeni làmmiñ di wax wala ñi leen di dëkkal fu ñaaw naan intérêt moo leen tax di def ñii defuñu ngir intérêt ndax nee nañ dañ koy cotiser di ko def tey koo xamante ne bokkul ak ñoom diine sax muy njaago bi catholique bi macha allah day ñëw fii di jël si café di ndogoo te loolu xéewali neen la kon nag jàppale googu dafa baax ku nekk sa koñ rek war ngaa mën a jàppale man dama ne ñiy café ci mbedd yi nañ leen may doole te jàppale leen te suukaru café gi di gën a duun di ci participer maa ngi tëj man la xaar dëgër musóor ma ànd ak di jéegoo ñu jëlal loolu leen kafe gi café gaa ngi dute gaa ngi café gaa ngi xanaa